jihaadiyan taxa wa tajri raabihu walaysa yanhuuniya kalbun naabihu ku tedd ki bi mu nekkee Gabon bi mu fay waaj a jeexal te am tubaab boo xamante ne bii saa yu ñëw ci moom day indaale xajam bis ku tedd ki ni ko xanaa dawkat bi moom mënoo ko fay bàyyi tubaab bi mer ci loolu te ëllëg sa ba muy ñëw ña fa yore ne xaj ñëpp mu ànd ak ñoom ku ne indaale sab xaj ñuy mbaw ak a xéeroo ka def lu nekk bu ngeen déggee histoire ku tedd ki ba mu jëlee xalima gi def ko ci encre bi wiccax ko xaj ba te xaj ba tàkk waaw morom yi ku mu riisu nga tàkk histoire boobu la ko waraloon mooy loolu waaye booba dafa fekk mu fay waaj a jeexal motax bam ci joge mu bind ni jihadiyan taha wa rabihu wa laysa yanhu niya kalbun nabihu la xaji bi ñi ñew dañ doon bawa ka xiru li nak bam koy bind bam ci joge mu ni mom jihad gi mu doon jihad ci ba mu indi won ko fofu lu jeex la waaw ay récompense ni tam waaw bénéficier na ci hmm, lu tonul waaw nena nak kon xaj buy ñëwati di baw dutu am dutu ko jublu wala sa yanhu ni kalbu nadu jihadiyan wa tajri rabbih wala sa yanhu ni kalbu nadu jihadiyan ta, jihadiyan ta watajiri rabbihu wa laisa yanhuni ya kalbun bihu jihadiyan ta watajiri rabbihu wa laisa وتجريرا به وليس ينهوني قلب به جهادي انتهى وتجريرا به وليس ينهوني قلب به جهادي انتهى وتجري روده وليس ينهوني قلب looloo tax lépp loo xamante ni bi bind na ko fa rek mu jàdd setantal